menteur, le BBC, j'ai barré, un scandale financier. Aliou Sall jox ñu suñu mane Aliou Sall Macky Sall Aliou Sall jox ñu mane yow Aliou Sall ma ne jox ñu suñu mane 400000 ci dund waaye mën na tane BBC jébaane scandale financier de l'année corruption 250 000 dollars agri trans ci lu bër gu doy waar contrat pétrolier et gazier Frank Timis Corporation gazier judiciaire partie internationale sarab bi ki dossier court pénal. Bibi Cosmos tire les bastos en parfaite collabo avec les bad boss. Association de malfaiteurs, le mec est sale, le Sénégal au cœur. Corruption scandale, ma mort de sama gars per na nag moo waroon woo ko tey <laughs> rek may sama kaw de <laughs> mais ñun mafia bi du fi bàyyi kenn ngay sama kaw nag moo waroon woo moo tax mu xaw a quoi père ngay yuxu bo lu tax ngay wax bay bay bay lu tax nga ma ciy tudd man ah, père danga cey bokk ni <laughs> ku bokk ci gént gi nan ci meew bi père ah man kat man man askan wi fi nekkal de deug deug borom bax nga la mais mëno ma joxe dossier tak ci rip ba bare na ma bul ci wax do père dama la ci daane rek bal ma nak bal ma bal ma nak quoi ma balu père vraiment <laughs> woona di tangal quoi <laughs> père jubluwuma ci dara lu dul xam nga rek leeral affaire yi danga cee comme takk nga ci nag Graul, amul problème mais comme tak nga ci mom foog ñu duggal la ci nag nga bal ñu nag nga bal ñu xam nga rek affaire mom deug deug la xàq bi la xàq mom bayu fi kenn même bu sama papa takkoon dama ko ci takal rip même bu ci sama yaay takkoon dama ko ci takal rip comme da ca tak nag bañu takal la ci rip rek après nga xol no raxasoo wala no ci sango wala nga genn balu sénégalais ñu bal la ci lolu père amul problème bal ma de bal ma bal ma tayuma donc comme ni ma len ko per per ne ci kaani de per ter waaye dara dañu menter amul problème amul problème nee naa ko baal ma maa ngi jéggul maa ngi jéggul loo ma ciy tuddee mais su loo ma ciy tuddee booy loo ma ciy tuddee mais nee naa la suturaal ma ma ne mais père ma la suturaalee suturaal ñoom Ousmane Ngom di suturaal ñoom Abdoulaye Balde sutural ñom Omar sar sutural ñoom elaj Hadj Amadou Sall suturaal ñom eh, eh, ñom Samuel Sarr ah mom moom suturaal ñoom Karim wad rew mi ci suturaal lañ tollu mom rew mi ci fu ne dossier yep kalaté wu wax ci jeex lepp ja loxo ñu lijeenti ko ben yoon ci loolu lañ neme mais suturaal vraiment man père mom loolu mom mënu mako mom fo foo rip rek ma takal la ci rip fo taqul duma la fa takal mais suturaal ma mom <laughs> père loolu mom dina metti trop nga jéggal ma nak bal ma de ki nga jox dossier dafa fo dafa dafa dof dafa dof king munon ko ko jox kenen mais man mom dama febar man dama si buru dama si buru kenn la def la la wax te te won nan sama medicament mom ko affaire day leer ben yon rek mu jeex yo eh, likut non dafa feros moom <laughs> ok donc comme nous len ko waxe legui dañuy dem ci majambal jagn majambal jagn Madiambal jagn nak ay doomu adama yo xamne la yu bon ci askan seen dund amul njëriñ nit maanaam ñoom ñooy le prototype de seytaan les apôtres de Iblis Madiambal Diagne ci ñooñu la bokk Madiambal jaañ moom leer na ko naññ ne amul benn yërmande yàlla bu ko mun a dimbale ba mu dem feneen fu dul safara moom xam na ko léegi nag lan lay war a dox ci kaw suuf mooy nan laa mun a yóbbee ñeneen safara jahanama mais Madiambal Diagne moom am na ci certitude ne safara jahanama moo ko moom.

Madiambal Diagne greffier le greffier L'autre <laughs> fonction am Diagne diplôme c'est un greffier palais de justice la waro nek. te fa la est-ce que l'acte, ngeen lan moo de Madiambal Diagne palais de justice mu jógee de greffier à journaliste <laughs> xamu leen histoire boobu de <laughs> histoire silib la histoire silib bu loolu moo jëlee Madiambal Diagne Madiambal Diagne ca greffier ga ca bu mu nekkee greffier histoire de slip ma fàttali leen Madiambal Diagne mooy ki nga xam ni moo doon laal gel boobu naa leen indil turu gel bi ku mu doon laal te silibam bi amoon ay dessin wu bopp porc bu rouge kooku mooy Madiambal Diagne waxoon naa leen ko fa mu dem di bàyyi ñaari jabar di laal beneen gel dinaa leen wax turam silib ba xam nga boo su booy laal da ngay summeeku silib ba mu desee woon avant moo futti bi bàngalaam bi di lang ka mu doon tëddee euh, gel boobu dinaa leen wax tur bi naa leen wax fu mu nekkoon et tout silibu porc silib bu weex bu am ay dessin bopp porc waxuma la porc de bopp porc Madiambal Diagne borom silib bu weex bi bu am ay dessin bopp porc bu xonk silib bu weex la dessin am ay boppu porc yu yu xonk bopp bopp waxuma leen porc bopp après ci la summi bàngalaa bi di lang mu mu tëddee gel bi de léegi moom laa ñëw dinaa la ñëwal ci tuuru gel bi fu mu nekkoon lépp naa la ko indil donc Madiambal Diagne caga la bandi salte la waaye euh, tekkatu dil la day dund ci chantage ci chantage nag am na ci terrain yu baari yu ko Abdoulaye Wade jox dama leen di wax ay journalistes yoo xam ni ñi ngi foon démb ñi ngi fi tey te ci chantage lañ amee lépp Madiambal Diagne dinaa leen indil histoire bi tamit fàttali leen ma ko histoire bu ko jëlee ci greffier greffier kii nga xam ni tey jii mooy seen ministre de l'intérieur nekk na fi greffier greffier en chef Madiambal Diagne greffier la diplôme en droit la yor <laughs> diplôme en droit mi ngi noonu porc bu xonk silip bu weex bu am bopp pork bu xonk silip boobu la la yoroon moom la soloon ba muy laal dinaa leen wax tur bi donc greffier bu jógee ci greffier palais de justice mu di bind di chantage <laughs> war ngeen war ngeen xam lan la <laughs> tey yéen xamu leen dara ci réew mi mais garaaw nañ continuer ci moom laa jëm Madiambal Diagne chaque gouvernement a ses journalistes gouvernemental Sénégal ci santage la mu musa doon ay journalistes yoo xam ni il préfère nek journaliste di bind di chan di chanteloo autorités yi di chanteloo gel yi di len teudé que dem nan dañuy nek ay greffier ak ay nangam ak am ngeen fi kuñ nan naan njóogu sec ci chantage le dund ba kenn gisatu ko jambal Diagne doul chantage tegum dil Souleymane Jules job gouvernement bu ñew ma nga ca diffamé duul chantage Abdou Latif journaliste diffamé duul chantage tegum dil ci lañ amee lépp Yérim Seck ci ñooñu depuis PDS ba léegi Yérim Seck ñu ngi ñi ma leen wax yépp ci nguur bu ñëw ñu ànd ak ñoom di leen menacer di leen dóor chantage ci lañ amee ay kër ay terrain alal ci lañ takkee jabar lépp ci lañ amee Yérim Seck ci diffamé duul chantage tegum dil ci la amee lépp yaa xam nday chantage duul tegum dil Racine mi ngi woon PDS Racine Talla mi ma nga woon ca PDS yàgg na def ay ay meeting ay lépp pour Ablaye Wade moom tamit ci diffamé duul chantage tegum dil ñu mooy ay ñi nga xam ni c'est des adeptes Lucifer c'est des journalistes corrompus bokkul ak Youssou Ndour du journaliste Youssou Ndour 2STV euh, Tunkara Tunkara léegi la. jamonoy PDS kenn xamu ko mais ñu ñu ay journalistes yoo xam ni lépp lu ñu bind am nañ ci kër nag Ndiogu Wat Seck am na ay kër ay terrain yuñ ko may ci jamonoy PDS Madiambal Diagne am na ay terrain yu bëri yuñ ko may ci PDS ci chantage diffamé Souleymane Jules Diop <laughs> pareil Abdoulatif Coulibaly pareil Yérim Seck pareil am na ay terrain yu bëri ca Goudret yu ko Abdoulaye Wade may lépp ci chantage waxuma journaliste yi bees yi ay Aïssatou Diop Fall ñi yàgguñu ñi ñi ñi tekkiwuñu dara jamonoy PDS bi dëgër ñu doon lekk ci ñi doon lekk laa lay wax du du mbal mbaam xuux yi taxawaalu nii non ñi ñiy desi bi rek la ñuy lekk te Macky Sall la même bu leen di jox di leen jox li Abdoulaye lu mu doon jox Abdoulaye ay terre la doon jox ay hectare Madiambal Diagne yor na ay hectare Yérim Seck na ay hectare yu jox ñoo ko et cetera et cetera donc déglu leen bu baax développement bi donc après ci la ñuy ñëw ay Tunkara ay ay Aïssatou Diop Fall ay ñoom Youssou Ndour xam nga ay ñoom 2STV ay Nedoko Bandoum xam nga et cetera et cetera c' est des adeptes de Lucifer journaliste corrompu kii di Madiambal Diagne nag am na problème ak Ousmane Téliko magistrat mais six mois de prison ferme lañ ko dóor euh, léegi laajte lan moo tax ba léegi tëddu ko dafa diffamé Ousmane Téliko diffamé fen fenal ko sosal ko takal ko Ousmane Teliko yobou ko procès ñu tëj ko six mois de prison ferme <laughs> ba légui tëdd ko lu ko lu ko téré la télé lolu ñepp sentence bi six mois de prison ferme <laughs> te le mi ngi aller. ay soxlam ba mi ci télé yi di wax yi di wax ban nit bu ñuy door sentence ne ko xolal six mois de prison ferme te doo ko ferme. waxuñu sursis de ferme <laughs> te tuddu ko borom silib bu wex ba am por ko bu rouge l'affaire alexis Segura lolou moo indoon problème ba mais lu tax tuddu ko moy Abdou Macky la andal lu ko tedd <laughs> Ousmane Teliko la am ak problème magistrat bo xamni dañ ko bëggon korom mu bañ tay toroxal lañ ko Tamba lañ ko yobbu ci all ba sanni ko ba legi amul bureau donc kep ku am problème ak nonu Macky Eh, dangay am ndam képp ku am problème ak xaritu Macky Sall da am problème ñaar ñii la boo tooñee noonu Macky sàll dangay am da da ngay yokk grade noonu Macky sàll boo ko tooñee yokk grade xaritu Macky Sall boo ko tooñee dañ lay tëj kaso Ousmane Téliko gis nga ma nga Tamba Cheikh Oumar Diagne ma nga ca kaso bi kii di. Euh, aji sar kan le video ndey xadi ci bureau magistrat ba ah <laughs> mujjul fenn parce que ndey xadi nonu Macky Sall la te aji sar wuji peccar go euh, Marème Faye Sall la donc lu mu def baxna fu mu nekk ko togn nonu Macky Sall da ngay am jam Suleiman Teliko je dis Suleiman Teliko Ousmane Teliko Suleiman Teliko képp ku tooñ noonu Macky Sall da ngay am jàmm kenn du la te dañ lay yokkal garaat kii di euh, faatu Ndiaye Endo tampi mais gis ngeen kan la saaga Baye Niass macha allah kilifa gi mu saaga Baye Niass mi ngi dox ay soxlaam. ndax MC Niass di caatu bay Niass nga taxaw di wax waju ñaaw naan MC Niass bay Niass jur ko allahu akbar auzu billahi mina shaytan rajim lolou moko ñime wax kenn duko laal te barki dem rek dem na setti ji maram Faye Sall la photo door sen rage ju togg sen ceeb bu tooy def ci ay jeun yi feey ñu lek sen mbaxal bu toy xep door ci kaani saf-safal ko te koku mo saga bay sosal bay dof boobu nga xam ne man du boo leen seetloo du ma mus a wax dof man sekk yéen dangeen di ràngati dof da ngeen di ràngati dof fuuta tàmpi kenn gënu ko nekk dof fuuta tàmpi jaaykatu caaf la woon pikin euh, ca ca ca suufu cinéma cinéma pikin ba foofu la si fuuta tàmpi doon jaay caaf ak ay firi di jàppale yaayam foofu la doon jaay ñetti doomu aadama yu doon seetaan fi cinéma ku ci nekk seede yàlla biiral nga ko yor na ñetti doom yu bokkul baay ay ñi doon seetaan fi Pikine ca Pikine cinéma ba lu mu tudd tur ba laa fàtte comme man waa Kaolack la ay royalto laa jàpp ak cinéma ABC ca Pikine cinéma bu siiw boobu nekk foofu joué nañ fa cinéma awa cinéma awa moom kii nii Fatou Ndiaye Tampi fa la doon jaayee ay ay ay ay caaf di jaay yaayam cinéma awa ñetti seet seetaankat cinéma ku ci nekk biiral nga ko benn doom kenn bokk ceeg moom baay ñetti doom la yor yoo xam ne ay seetaankatu cinéma awa dof bu mel noonu yéen da ngeen di ràngati dof dof bu dem yor ñaari caméra yu vide bu xool leen mi nii caméra yaa ngi nii ah waaw ndey xadee ma ko may lépp a ngi fii Ousmane Sonko bu mu koy violé vidéo yëpp a fii ay caméra vide caméra vide xamul dof la xamul sax ni xoolal image yi du nekk ci xott yooyu ci émetteur ba lay ne xamu ko am ngeen kooku dafa dof bàyyi leen ràngati dof dof bu la saaga waroo koo saaga bu la xasee doo ko xas dof bu la dóoree sax buñ la fekkee ngay fayanteeg dof lu ñu lay wax wéroo wéroo lañ lay wax bàyyi leen kooku wérut ku dem ba indil leen ay xottu caméra fen fen fen ba ne caméra yi ndey xadee ko ko may xool leen caméra yi ndey xadee ma ko may ndey xadee ma ko may mi ngi nii ay lépp li nga xam ni Ousmane Sonko def na ko viol mi ngi ci biir te xamul ni lii ay xott la mi ngi mel ni portable bii portable portable bi ñu dind ko caméra bi nii vide mu indi caméra bi nag xool image yaa ngi fii ci xottu portable bi lii xoola bët bi mu indi bët bi nag xool leen mi ngi nii lépp luy viol mi ngi fii ne xadee ma ko may ne xadi ngeen koy tontu man bu ma gisee ngeen koy tontu dama naan yéen wéru leen da ngeen di ràng ti dof dof dof na ba pare bàyyi leen dof bi bu bu bu newoon am na bopp ay ñetti seetaankatu cinéma duñ ko biiral ku ci nekk mu am ay doomu biiral ñett yu bokkul benn bàyyi dof bàyyi leen dof Sénégal dañoo gaaw ci ràngati dof dof hôpital la mérité dalal xel wata wala ngeen yóbbu ko fànn mais bàyyi leen dof yi ngeen di ràngati ngir yàlla yërëm leen dof yi Sénégal bu fekkoon am na loi boo xam ne képp ko dof loo dof wala kuy ràngati dof dañ lay tëj ci kaso yi dinañ bëri ñuy tëj ci kaso yi dof yaa ngi traîner partout am nañ internet am nañ lépp am nañ réseau dañuy jënd connexion ku feebar da ko war a faj wala ngeen yóbbu ko hôpital te bàyyi di ko ràngati ràngati ko mooy nekk di ko di teg moom wala di waxanteeg moom dof moo tax man du ma mus a kii parce que man dama mus a jàpp ni xel bi matul dañ ko war a faj yi geex na tàkk moo tax du wax sax damay romb rek damay romb waxuma ak moom sax ndax dof la suba mun naa xëy sax nekk ci man saaga ci saaga man day wax lu wax lu ne <laughs> mais comme dof la du ma ko mës tontu dof mom dof du ma ko dóor du ma dóoranteeg moom du ko tontu dof mom du muk dof buy wax du ma ko mës tontu du ma ko lu ma wax baxna <laughs> lu ma wax nga amul problème eh, fan fu tatam bi lu la neex waxal <laughs> amul problème ma ngay dem yow taxaw ma jog ma jambal ma ngi ca ma jambal borom jamb ja borom jamb ja ma ngay ca ma jambal xaj bu dey bi borom sil bu weex am bop porc bi donc ma jambal jaañ lay ñew l'affaire Alexis Segura, la mu def chantage la doon def ab Ablaye Wade mer ne mais waa ji li ma ko may kii doylu la may naa ko ay terrain ginnaaw gudd ret may naa ko ay terrain cité Djily Mbaye may naa ko ay terrain ba léegi mu may xool kii danaa Dakar moomam <laughs> jàpp ko xoolal noq ko ci kaso bi nag foofu la ko <laughs> Ablaye Wade Dakar ci kaso bi ne ko yow doo doyal sa chantage nga may chantage ba léegi di bind ay article di ma saaga di yàq sama système di yàq sama nguur may naa la ca gi gudd ret ay hectare doyaloo

la paresse intellectuelle hein? xam ni <laughs> yow greffier nga greffier mujjee doon ab journaliste espèce de journaliste Feuz Feuz brand, du porc de bu ko Bop pour porc demal nga wut Bop pour porc bu rouge silib bu weex bu am pour porc bu rouge bu leen ma wax loolu rek la ma waxul Feuz pour porc la wax porc, porc pour porc bu am ay dessin bop pour porc bu rouge silib koo xam ne fonction greffier nga mu tribunal nga war ne loo lu ko fa jëlee laal jabar jàmbaroo ko fa jëlee ñu jàpp ko flagrant délit bu koo kii mu daw loolu moo fa jëlee dem leen laaj ko moom Madiambal Diagne en tant que greffier tribunal la ko fa jëlee laal jabaru jàmbur flagrant délit moom dafa alaf silip euh, silip silip amul amul ñor silip amul silip amul caleçon amul ñor caleçon amul élastique day daanu dafa yëmbax moom mooy yëmbax tubéy gaaw ci mëna a dem boo déggee paa ya mbëx tubay gaaw ci mëna dem kooku mooy Madiambal jaaj silib bi ñoor yépp dafa dag merci feuse bop pork ba mu ne greffier lu ko fa jëlé té fofu la <laughs> mu jëgë fa daw ci journalisme laal jaboor jàmbur flagrant délit ñu japp ko la main dans le sac dans l'islam dañ ko waron rendi ray tàggale bopam ak batam ah, dans l'islam oyof tubay la ba gars yi jëlee affaire ba yéegal ko ca kaw <laughs> un greffier bu ñu jàpp ngay tëddee jabaru jàmbul frag la dir ñi fekk la ci biir ngay dóor say suqet muqet ñi jàpp la nga daw mujj doon ne ne journaliste nii ma jàmbal jaañ mii lu ngeen xamul woon de <laughs> dossier yëpp lañ leen di indi léegi nag ñu ñi dem ci ma jàmbal jaañ ba léegi ci ma jàmbal jaañ lañ ne gel bi nga xam ni gel bi nag xam nga système day dañu am ay gel nee naa leen système boo leen gis gouvernement boo leen gis am ay gel ay caga <laughs> yoo xam ne ñoom dañ koy dañ koy awante Awa Ndiaye la tudd Awa Ndiaye mi ngi doon liggéeye le piroguier restaurant le piroguier Barthélemy Diaz xam ne bu baax Awa Ndiaye musu koo laal nag mais da doon fréquenter le piroguier Barthélemy Diaz xam ne le piroguier restaurant le piroguier boo leen demee foofu laajte Awa Ndiaye fa la doon liggéey le piroguier restaurant en tant que serveuse taat yu baax sax rafetul noonu mais taat yu baax nooy xam nga batar batari gars yi doon fa jaabante kooku la ma jàmbal jaañ jàppoon di ko diwu di ko laal awa njaay ca pirogue restaurant Barthélemy xam na awa njaay gars yi que fa la doon nag la kii di ma jàmbal jaañ demoon futteeku def silibu silibu neen bu wex bu am bop pork bo leen demé le perroguier restaurant bo dinañ leen ko wax man ay tour la wax ay tour ay lieu lepp dara du di néew lii bu leen rawé lepp raw na leen li ma leen di jox yàlla mënu ko dindi ya yalla suñu borom subhanahu wa taala nak dëgg haq bi haq la donc ma jëm ba jaay sa gel bi awa njaay awa njaay nak père da ci doon door père da ci doon door mom da ci doon door am na am na ñeneen ñoo xam dañ ci doon dóor mais père da ci doon dóor nag <laughs> père bandi la nee naa leen bandi la père da ci doon bàcc de Awa Ndiaye ak moo ko xam ak xam Awa Ndiaye <laughs> ma fils jëlal photo bi bu ko joxe nag bu ko joxe maa ngi photo Awa Ndiaye nag sama tata Awa Ndiaye tata Awa Ndiaye ci pirogue restaurant maa ngi photo ba père dóor na bu ko jëlal photo mais waaye fils bu ko joxe nag bu ko joxe ah bu ko joxe parce que xam nga dama ci doon laal dama ci doon laal dama ci doon laal xam nga rek yëpp dañ ci doon muqi suqi muqi dañ ci doon suqi di muqi <laughs> dama ci doon jël sama chance rek donc Awa Ndiaye mii lañ la la kii nga xam ni moom mooy Madiambal Diagne doon laal bàyyi jabaram doon laali ji Awa njaay waaw père nag da ci doon dóor moom it parce que benn jour père dafa jóge palais dox dem jël otom dem restaurant le piroguier waroon iri ji Awa Ndiaye jël Awa njaay foofu ak oto mi ngi ko fekk sax mi ngi toog ak Barthélémy Dias nag déjà per bu muy jël Awa Ndiaye ci loxo ba ma nga toog a Barthélemy Dias di waxtaan Barthélemy mi ngi may dégg ñi may ñu ngi dund père ñëw récupère Awa Ndiaye da doon xaar Awa Ndiaye wàcc Awa Ndiaye bu mu wàccee Barthélemy fa la newoon sax di waxtaan père ci loxo Awa Ndiaye la roccee Barthélemy Dias la roccee Awa Ndiaye dugal ci oto ba yóbbu di dóor tërër téléphone Awa Ndiaye sonné Awa Ndiaye jël xam nga kan moo koy woo <laughs> seen bandi bi Madiambal Diagne borom jàmb ji Madiambal Diagne nee na ko yow foo nekk ñu ne ko maa ngi kër père père père laa leen wax wax na turam nag Madiamba Diagne xam na père de Madiamba xam na père mais père laa yem Madiamba Diagne woo téléphone déglu lan de dama leen raconté lépp du ma ci nëbb dara Madiamba Diagne woo Awa Ndiaye ne ko foo nekk mu ne ko maa ngi kër père lay kër père mu ne ah mais maa ngi war a mu ne ah, xam naa yaa ngi koy defal yu neex de yaa ngi koy kat yaa kat kat yu neex li la ko wax. ma jëm bal yaa yang koy kat kat yi neex xaram dem kat sama jabar sax kom kom mënu ma la kat tay xaram dem kat sama jabar loolu ko xaram xaram ma dem ma jëm bal ne ko xaram dem kat sama jabar kom mënu mala kat xamna yaangi kat per kat yi neex seen wax la nak du samay wax de man damay wax luy wax de xaram ko ënd ground la amul lu may nëbb dafa wo Awa Njaay nako fo nek Awa Njaay nako ma ngi keur per mu ne ko xamna yaangi kat kat yi bax kat yi ngay kat kat yi neex yi ngay kat yaangi kat kat yi neex mu ne ko aw njaay tontu ko kono koma maa ngi kër père mu ne kon garaaw baa ma kat kat sama jabar sa xaaral ma dem kat sama jabar moom kau yaa ngi kattan lii la xaar moom baat moom kii di nu mu tuddati ma jàmba jaay sama jabar sax kom kom comme instant yi parce tur turu père la ko wax peres jamono PDS la affaire bandi la boobu père mu ngi ci kaw aw mu ne ko xaar manam kat sama jabar comme comme finalement mënuma la kat ko yaa kat rek ba xaar manam kat sama jabar astaghfirullah Barthélemy ma jambal moom Madiambal ma jambal Madiambal do maram yi ngeen togal tay muy santage di tek dil kat bi ni ki tiaga tiaga comme day laal aw Ndiaye di wax naa leen ni silibam ba ca keur aw Ndiaye la donc koku day ñewat y'a jamais deux cent trois donc aw Ndiaye iri la won iri la won ca PDS ca restaurant Le perroquet donc da ko boole laalaat jour boobu père moo demoon jëli Awa Ndiaye ca restaurant ba xaar Awa Ndiaye wàcc muy danget Awa Ndiaye yóbbu di dóor ca digg ba la la doomeram ji woote moom mii di ah, ñuy def rek la ay doomeram lañ yu bon ñoo leen jiite oui xaaral xaaral kat sama jabar sax fu ne mii la yaa ngi kat kat yi ma xaaral kat sama jabar nii Awa Ndiaye coupé bi mais <laughs> père xam na après expliqué na sa waay ji la mooy woote nii di mi ngi dem laal jabaram doomu xaraam yi ñoo leen di jiite ah c'est que xamu leen sax lu xew doomu raam ñii moo tax bu ma toogee dégg ñaan wii bu kii la kii kii kilifa la ma ne a yéen a yor kilifa yu bon ay kilifa safara yoo xam ni ngeen yor boo leen bàyyiwul bu ñu leen di waxee loo xamul ngeen di toog naan da ngeen di jéem a défendre ñu ñu mérité wul défendre. boo leen bàyyiwul loolu boo leen duggee safara looloo leen fa dugal dañ leen di wax ay wax yoo xam ne xamu leen ko maîtriser wu leen di mun cee noppi ngeen di dëmm dëmm lu di doon avocat di jaabul naan da ngeen di défendre l'indéfendable xamu leen dara ci lu xew ngeen toog di dëmm dëmm di jéem a jaay Sénégal lan moo tax loolu xanaa surtout naafixoona Sénégal moo tax yàlla wàcce ko surtout naafixoona boo toogee ci plateau lu ñu la laaj xamoo ko mun a noppi tëj sa gàtt jox sa da ngay gis ku toog ci plateau oui Mollah Morgun nee na lii non man gisee ma ko parce que ñii ay kilifa lañ mais shut the fuck up lu ñuy wax da nga xam ki ñuy waxal xam na boppam xam na bu baax li ñuy wax dañuy ñun dañuy far ay ñëw la restaurant le ne la di dund te doo demee laaj ne sii sii am na Awa wax na dëgg leen xamul xamoo mais da ngay ci plateau di dëmb dëmbul bu ko expert en tout loo fekkewul ni ni ñi koy raconté fekke yor ay dossiers yu leer tangible ay preuve yu leer di wax xamoo xamoo setta fokk nga dem sa yoon lan moo tax sénégalais mënul ñëw ci benn média ñun laaj la dara xamoo nga ne noo xaw ma de ah xëy na moom mi ko wax xam na ndax boo ko jegee mu wax leen lan moo tax mu wax ko ak fu mu ko teg mais sénégalais mënu xaw ma quoi man je pense que surtout naafiqoona sénégalais moo tax ñu wàcce ko ay naafeq lañ lu ñu xamul bu ko débattre dégg nga Mollah Morgun buy wax avant Mollah Morgun doonu ko wax ku bokk ci ñoom ñoo ñëw jox ko dossier xam bu baax li ñuy wax ñu leen di joxañ nga toog ci plateau bëgg a doon expert tout laaj nit la loo xamul xaw ma ko de Mollah gën moo ko wax noonu munuma débat ci lu ma xamul mais dama nga laaj ko ko moom mi ko wax kay mun na ko wax mi ngi nii mi ngi dund yor na gémmiñam woo ko mu expliqué. mais fa lañ ne wéy non gars yi war a bàyyi gars yi ñu sosal xam nga ñi ay kilifa lañ ay ki ki dafa doom yor ay pap c'est pas fokk boo xamul lu ñuy wax doo dox sa dox wala nga ne xaw ma wala yow mu yow yàlla nga xamoo xamoo chaque fois nga dem sa yoon bu la posé loo xamul loo maîtriser naa fekk bi nga doon dem ne xaw ma ko maîtriser wu ma ko moom mi ko wax mun na nga ko waxal demal nga woo ko nga laaj ko numéro téléphone am na ko. boo bëggee jokkoo ak moom jokkoo ak moom li nga may laaj xaw ma ko ñoom mënul nekk quoi koo toogal plateau lu ñu la laaj nga fen di fen di duul di teg ba pare di jéem a dox ci mentalité nit yi wala ci sensation wala sentiment wu nit yi oui xam nga gars yi la ñan ñooy kilifa xanaa say kilifa nday lañ ñii tekki dara ñii di ay doome xaram yi yuy nation bi di doome raam yi tambambaalu ci état bi kilifa xanaa sa kilifa nday lañ ak sa kilifa baay yow mi torox ba tott doomeraam bi tekkoo dara yow la nekk sa kilifa man doomi xaj yi nii dinañ ma nekk sama kilifa xanaa nitu safara laa xanaa dañ ma bind pour ma dem safara ñii dinaa leen kilifa woo sàcckat fenkat raykatu nit posone nit trafiquant de faux billets trafiquant de de visa trafiquant de de de passeport diplomatique sàcckatu semence sàcckatu engrais doomeraam yi sol ay grand mbubu nekk ay mafia bandi salte toroxal askan nga naan ay kilifa lu leen def kilifa xanaa sa kilifa nday lañ wala sa kilifa baay xaj bu day bi ifal lay tafal doomu kuttu mbaasaan bi da ngeen di ci télé yi di ko ngeen teg seen gat yi te dem mun a duul ak ak jaay expert donc moom Madiambal Diagne ki muy tëddee Awa Ndiaye la du Awa Ndiaye newoon na piroguier di restaurant euh, di di serveuse xam na ko bu baax ba leen ko gisee ne leen ko Awa Ndiaye mii ñoom ñëpp ñoo bokk fu ñu doon doxee ñoo ay bande lañ xamante nañ bu baax boo jàppoon père mu yóbbu la kër terrain yu Madiame Wadane am yëpp santage yëpp xam ko bu baax ñun ñoo nekk ay nit yu bees xamuñu dara dañuy wax luñu ñu wul mais dañu war noppi xam ne ñun xamuñu ñu waxal ñu mais c'est des c'est des vieilles marmites ils se connaissent entre eux bu baax a baax a baax te duñ ko te duñ ko weddi ñoom ñëpp a ngi dégg li ma leen di waxal ah. doo gis kenn ku ci taxaw mais Sénégal moom dafa rafle kilifa ku amul kilifa jinne yilif la ay doome xat rek ñooy taxawaalu foofu ñu leen di def ay kilifa lan mooy kilifa sax kan mooy kilifa autorité du kilifa de kilifa mooy ku ragal yàlla kilifa mooy ku yàlla nan kii kilifa la mooy ku am diine mooy ku ragal yàlla mooy ku dul tëddee jabaru mooy ku dul fenn mooy ku dul sàcc alalu askan mooy ku dul askan loolu mooy kilifa xaji dee yi nga xam ni dañ leen di jox benn caga de première classe bu ñuy jox mu doon ministre ngeen ne kilifa la kañ la kilifa ndax garaadu ministre gas sara marak kañ mooy joxe loolu ki ko koy jox sax du kilifa ku jox sax du kilifa ki koy def ministre sax du kilifa ki koy def député sax du kilifa ndax bu taxaweeg yàlla yàlla woon ko ne doo kilifa mooy yow ma xëyam dina metti di ngeen gis ay nit yoo xam ne ngeen di wooyee kilifa yàlla futti leen bañu set téye leen di malaaka yi téye leen di leen safara di taxar seen maam ci biir safara bi ngeen doog ngeen tiit non non kon kilifa bii non kilifa ci ngeen comprendre kan mooy kilifa ku wàcc sa diine ku wàcc sa ànd and boo dem fekk fa borom wàcc ngeen seen diine xamu leen kilifa dem leen jàng ci alxuraan yàlla wax na leen mooy kilifa ñi ngeen di wooyee kilifa duñ kilifa ci saayir duñ mérité wuñ ko titre bobu mérité wuñ ko bayi len ko len gis way ko kilifa bayi len cagat yi ngeen di way kilifa bayi len band yi ngeen di way kilifa bàyyi leen raykatu ni di ngeen di way kilifa ndax grade rek lañ len def ministre suñu du non ministre après gas ma tin kilifa yu bon yi kilifa safara jaxanama yi balaa maa dee ngeen tok tok tok ku am ngeen ne kilifa ku ñak du kilifa tey Mollah Morgun du kilifa كان موي كليفا سو بو دوني مينستر لانتيريور نين نين وايام كليفا خدي داي نافقوني نافقي نانا لين يانا تخ يالا واتي نافقونا سورة بوب يانا تخ تايجي كان دوما واي كليفا نيماي واخ تايجي دوما نام يوي فو سيير يوي نون ماي واخ نيغي لين واي كليفا ماي دقا سين مام دي كلاتي سين ديل تايجي ناوما كليفا سو بو دون مينستر لانتيريور دي دقا سين كان دو واخ مان نيوي باي كليفا كي باي كليفا kan moy kilifa moy ki am ki torox rek torox na san senegal dal ki torox amul droit amul loi dara doomeram la daal japp ay meram di wooye kilifa mom tank dox joxu ko garaat ministre wala député mom du don kilifa te kan mo koy joxe yalla koy joxe garaatu kilifa wala wala wala wala député wala lan mo koy joxe xanaa du ay nit xamulen fu ngeen di taxaw moo tax man yéen it genre discours yooyu moo ko déggee dama leen di romb damay xam ne ay golo lañ ay baabun ay xaj ñoo tox ay kalbun xaj ay ximaarun ay mbaam xux yu toog tàggu naan kii kilifa la non kii kilifa ko def kilifa da bàyyi seen diine bàyyi seen ànd moo tax ngeen réer delloo leen dellu leen ci njalbeen gi dellu leen ci diine gi dellu leen ci diine gi ngeen xool lan la yàlla wax ci kilifa ak kan mooy kilifa ma dee ñu naan kilifa bii kilifa baa kilifa yéen a rafle kilifa yéen a rafle kilifa ay kalbun xat ximaaru mbaam yi leen jiite ngeen naan kilifa des adeptes de Lucifer des corrompus des imbéciles des journalistes des des arnaqueurs des des faussaires maanaam ku nekk jóge kilifa ay caga hmm? nga xam ne fu ñu toog fu ñu toog fàtte fa seen silib fu Macky Sall du exemple moom ak ñaw àndal du exemple amul benn exemple wala benn leçon bu ñuy jàngal voilà fenkat la sàcckat la naafeq la njublang la bandi salta la rancunier la méchant la ene la du du du exemple Macky Sall du exemple amul lan lu ñuy wax man du ma jëlee benn leçon ci Macky Sall wane ko ci ko ci amul diine amul islam xamul xamul gëmul dara kooku du sama kilifa ku sa nday liggéeyul nag Macky Sall doon sa kilifa yow la yow la yow la engagé man Macky Sall du sama kilifa ci ni ci saayir ni ci baatin xooluma ko ci dara ñeewuma ko ci dara ñaanuma yàlla yi mu may ma benn jikkoy Macky Sall bu mu ko na yàlla bu ma naree may benn jikko Macky Sall yàlla na ma safara jël addiya yàlla naa teel a faatu bu naree dund am benn jikkoy Macky Sall benn rek benn ci jikkoom yàlla may eh, safara jël addiya ñaanuma ko yàlla ni ci sayer ni ci batin kum nek sa kilifa lol sa ndaya ligue yo ya xam yo ya xam xool leen nitu Macky Sall rek def xool nitu Macky Sall yi rek def capitaine Touré man ma len jëk a wax fi si vous vous rappelez très bien déglu len laay bi de bi jaas bo mu falé ki di Guy Marius Sagna ak capitaine Touré ci jour bobu am réunion palais Macky Sall ci bopp na day dàq lu ñaar ñoom maa njëkk a génn alerte leen ba alerte Barthélémy Dias ne ko attention attention gaa yaa ngi ñëw sa kaw Macky Sall guddi googu nee na amul nu muy def ba du dàq capitaine Touré ak Barthélémy Dias maa ko njëkk a wax fii Sénégal boobu Barthélémy Dias tey lay doog a ñëw di kii ba mu koy alerte dee leen bu baax li may wax guddi googu noonu bi nga xam ne Barthélémy Dias je vous vous rappelez boobu bu Barthélémy Dias fale kii di capitaine Touré falat kii di Guy Sagna jour bobu ma Macky Sall nalawul goudi réunion wo gars né damay dak dana dak ñaar ñoy gën après gën na nan ay révoqué ba ma kay wax té ba may wax Macky Sall ay rank la jour bobu yéen nga ngi fàttaliku lool si vous vous souvenez très bien nan Macky Sall rank la paré na nak pour dak Guy Marius Sagna tey ngeen tay ngeen kay dogu gis luma leen wax rek. Tak leen ko téré information ci bir biir la ci bir pale mën na la wax ban heure le Macky Sall di sétane samay live bu mu arrêté sétane sama live mui bu mu mum mom Macky Sall bu mu mak. ànd ak jabaram mak moment yoyu Macky Sall samay live chaque goudi à partir de 2h du matin le Macky di ubi samay live di sétane man mola Morgun chaque goutte de 2h du matin Macky Sall ci lay seetaan sama live moom Macky Sall laa la wax il suit très bien li may wax te loolu waxoon naa leen ko ne leen ma ngay waajal pour dàq capitaine Touré tey tey bu ma leen di alerter kenn xamul kañ la mais malheureusement ay kutumbaasaan Macky Sall les répondeurs automatiques les raalaa ñoo ñëw di leen nax di leen fowee xam nañ bu baax li may wax mais ñoo ñooy ñëw di leen di leen manipuler ah lan la fi Mollah Morgun waxagum muy fen mais ñoom ñëw di leen manipuler quoi non kii fenkat la kii fenkat la pour nga bañ a a déglu pour nga bañ a attentionné wu parce que doo nit jàppee wuñ la sax nit ay ñoo xam ne ay raa lañ tekkiwuñu dara ay raa déggu lañ ñu leen di fay ñu ñëw di la manipile yéen ci laay bi non dafa mun a fen ci lan la fen laaj leen leen ci lan laa fen boobu ba léegi ci lan laa fen ci lan mais dañ leen fay yabal leen ci Mollah Morgun mooy point essentiel bi. dem leen déstabiliser ko dem leen fen loo ko dem leen ngeen ne day fen rek dem leen bu fenul dara sax lu mu wax yëpp dëgg la dara mënu ko mais dem leen rek ne di commenter ne day fen di ko saaga pour déstabiliser ndax am na ay dof yi ngeen di yóbbaale malheureusement ñoom bu ñëwee loolu rek la ñu wax fen ñu wax dara loo fen fen loolu rek la ñuy wax dañuy ñëw rek saaga c'est des répondeurs automatiques payés pour ça pour dem envahir réseaux sociaux yi Saga, nous ci mola saga ci 60 c'est ça Si leen yewul ñom ñu jëriñoko soot ngeen ni taxar seen mam ñom que di leen di di ils sont payés pour ça fen rek lañu def xol ñu fen dañoo ci kanam rek ne article bind capitaine Touré xalisam be ba capitaine Touré ngi la waa PDS waa kii la de APR de répondeur automatique ñoo def seen article rek dóor di jéem a jaxase capitaine Touré di wax loo capitaine Touré lu mu waxut ñoom ñoo ñëw ne waa xaalis boobu doon na ko jox capitaine Touré yéen ay sàcc ngeen parce que xam nañ ni ay nitu Ousmane Sonko ñoo teg kañot boobu ñooñu ñoo ko cotisé ñoo ci jàpp ñëpp ay élément Ousmane Sonko leen léegi nag ñoom comme toog nañ xam nañ ñoom xam nañ ne affaire bi doo ñëw rek mu génn c'est de l'argent 37 millions donc ci loolu la ñuy ñëw infiltré gars yi ko waxoon naa leen bu yàgg na leen at chaque jour moo wax leen lu ngeen xamul chaque jour ma wax leen lu ngeen dul bàyyi xel ba ñu defee ba ñu tegee Macky Sall teg un milliard jël ay booy ñu jox leen préparer seen euh, répondeur automatique APR moo la ñu woowee raa les raa déggu répondeur automatique apériste un milliard ubbi leen siège ca jom ñaajo laa ñëw def leen live ne attention dañ leen infiltré attention dañ leen infiltré Macky Sall teg na un milliard tegal leen siège ca jam ñaajo ordinateur yi fees teg ne leen dem leen ci internet bi saaga leen leen wax leen waxoon naa leen ko ngeen toog rek gis ay junni junni faux profil yu génn te doo leen musa ñëwoon gore sax ne ah Mollah li ñuy waxoon de chaque jour ma wax leen dara rek <laughs> loolu ñëw dama ko alerter rek boum ñuy commencé ñëw foo profil yi boum boum boum j'aime Sonko je suis Ousmane Sonko di saaga rek di saaga gars yi ay ndey fekk ñoom la ñoom ay photo Ousmane Sonko alerte la attention attention dañ leen attention attention mais ñu ngi rek ndax leen système li ngeen xam ci système bëriwul dañ leen di diriger mais leen système nu muy la leen dara après ngeen gis ci seen du ah, la gis nañ ko ñëw nañ nañ ñu nangam nangam ñoo article di merloo di wax capitaine di sosal capitaine Touré ndax ay fenkat lañ amuñu argument amuñu dara dama leen yàqal ci lépp amoon neewoon nañ am nañ sperme neewoon nañ am nañ vidéo am nañ photo am nañ ci lépp laa yàq tey déggatoo kenn ci ñoom ku ne am na foto nii sperme nii vidéo nii dara lépp laa kalaate seen dil lépp laa kalaate moo tax man rek lañ vouloir man rek lañ vouloir ci kaw suuf

ngeen gis ko lu ma leen wax ngeen teg ci seen bët ba suñu jonn yàlla tey maa ngay wax teg lu may wax doomu aadama teg ci seen bët ba ma leen waxee ne Macky Sall la ngay waajal capitaine ture ak um, gii Marius Sagna pour dàq leen ngeen teg ci seen bët tey ma ne leen Macky Sall la ngay waajal sosal kii di Barthélémy Dias bu ko dóor benn un an de prison

lu ma wax rek teg leen ci baaraam di ko gis wala ñu jéem ko changé wala ñu contourné ko wala ñu ne ah dara comme waa ji moom ah, ñu dem na yónni nañ ay nit ñu ne kii dafa dof wéerul xam nga sénégalais duñ ci bàyyete xel quoi waaw dañ koy def mais bu dul sénégalais dañuy suivre duñ mën a def dara ndax lu ñu teg plan bu ñu teg ma duur ñoom lu ñu def ce jeune homme là ce jeune homme là qui l'informe ce jeune la là ce jeune homme l'informe ce jeune homme <laughs> là ce di continuer di wax moom gas El Salvador ñi ko jël nonu tëj ko ci kaso bi rapidement mais gas El Salvador je vous montre ndaysan maa ngi jégalu nag parce que moment bi nga xamni ne maa ngi woon ci révélation yi toy war gas El Salvador a tout fait pour jox ma dossier bi ni di domou Aïssata fay di domou euh, lu mu tuddati di domou Mansour Faye bugg ci woon parce que limay wax ku ko wax nek Sénégal dee ci kaso bi benn doomu arme ma vie est en danger limay wax doomu à bu ko wax Sénégal xol leen moom moom mi gas El Salvador xaaral ma woon leen message yi ndeysaan bind gas El Salvador xol leen vidéo yi la ma gas El Salvador kii vidéo doomu Mansour fay la nii xolal tontu ba gas El Salvador parce que daf ma bëggoon pas dossier bi dossier, mais j'étais trop occupé trop occupé je recevais des centaines de milliers de messages je reçois par jour des centaines de milliers xaw ma sax kan moo may bind Je bëri xoolal ma bind bi ziar euh, grand ziar naa ne lépp jàmm Gas El Salvador activiste saint lugien C'est est que je qui m'a donné ton numéro regarde cette vidéo après tu me reviens je t'expliquerai. Moi, vidéo doomu kii bi nag yi nee na ma ko bu hein? mi c'est la fille de Mansour Faye. Depuis le, le 1er le premier février euh, avril 1er avril 2000 2022 mi ngi ma ko yónnee boobu affaire sax vidéo témoignage sur la fille de Mansour Faye mu yónnee waat ma beneen le 9 le premier le 9 le 10 Mola, réponds-moi s'il vous plaît j'ai besoin de toi urgemment xoolal message yi tey ci kaso bi hein? mi ngi ci kaso bi woote na ba tàyyi kon dossier bi bu ma ko jëloon tey du nekk ci kaso bi maa koy ñëw di leen ko jàmb te duñ ci mun dara dossier bu tàng boo leen buggut a laal jox leen ma ko ma dem ci au front ak ñoom dañuy libéré nag Gas El Salvador par la force non defeere nañ ko ci même jour garde à vue même jour gendarmerie defeere instant yi mi ngi kaso kaso Saint-Louis taxawu fa sax dafa ñëw ñu teg ko garde à vue dugal ko ci oto mu mu ànd ak prisonnier yi dem tëddi defu deful une heure de ci ci foofu c'est dommage yeewu leen leen ngeen lànk xëpp leen seen bët yi ngeen lànk taxaw leen temb ngeen lànk mel ni affaire sexe rek moo leen yitteloon moo la an audio yi moo la an audio yi moo la an audio yi lepp ndax ka ndax sexe ndax ñam ndax daanu kese mo leen intéressé dañ koy laté bi fantasme di yout boko ko won tamit yout rek la def wala mballu wala boxum sen bagage yi ba daanu kese la ñuy def wala di excité wu duñ xex duñ def dara ko ci gis ma ngay yout ko ko ci ko ko ci jox du xex jaasi ba daanu mballu tooy xet seen ñi dem sangu ji set ñi di baaraam seen bopp rek loolu la ñuy laajee yi pour jouir mais bu dee pour jox rek ñu génn ci mbedd bi kenn du ci génn tous tasar ñebe muy but buti des fois da leen di jéppi sax des fois dem leen aller vers l'essentiel jóg leen ci pour élection législative yi Benno Bokk Yaakaar luñ def seen cochon lañ indi indaale seen parrainage bu mat sëkk ba ëpp benn nit parrainage bu mat sëkk ñoom ñoom dafa foofu ñu ci diversion Benno moo ko njëkk a def Sénégal ba nii bu mat Benno ñoom dañoo indi cochon indaale parrainage bu mat sëkk ba ëpp benn nit te dañ leen waroon dañ leen waroon ndax waroo manqué benn nit waroo ëpp benn nit ñoom dañoo indi parenage dañoo inda caution lañ indaale parrainage mooy ñoom d'office ñoom ñoo ko njëkk a def ñeneen ñëpp a ngi fii kenn indagul parrainage bu mat ñoom dañoo dem lu euh, euh, mu pour déposer caisse de consignation indi parrainage nii parrainage bu mat ba ëpp benn nit loolu nag c'est loolu loi bi santaane ko dañ la war a éliminer indi caution indi parrainage jox ñu tegal leen nële. ñeneen ñi ñoom ñu ngi fii rek di werante non laal na ko laal ko ay eh, moo la ana ojo yi di yuut moo la ana ojo yi ñu nit lañ yéen ñu nit lañ ngeen foog ni jóg leen ngir yàlla créé leen ay meeting seen diggu kër yi créé leen meeting ci seen jotaay yi convaincre leen seen papa yi convaincre leen seen yaay yi seen mbokk yi seen nijaay yi seen bàjjen yi seen tante yi pour ñu voter Yewwi Askan Wi sensibiliser leen ooy waay waay ngir yàlla réew mi metti na saa yi ñu yeewoo nalaw loo leen ci ay ay débat yu ñàkk xorom ay waxi dofu Macky Sall ay golo golo lu Macky Sall ay doomu Macky Sall ngeen nekk fi di werante rek woo sax mun mu indi ay gingin de oui docteur ba dem na de nee na Adji Sarr ñam nañ ko ci jamonoy Blaise Diagne loolu bu ma koy wax fii kañ la ngeen tagg vidéo yooyu yóbbu Adji Sarr ñam nañ ko ci jamonoy Blaise Diagne daggu leen vidéo yooyu yóbbu ban 1900 la avant gynécologue bi ay weeru weer ay ay un an avant gynécologue bi ngeen dagg ko yëpp di ko TikTok te xamu leen lu ma leen doon wax après mu ñëw. record bi wax ne waaw kii ñam nañ ko ci jamonoy Blaise Diagne fëkk nañ ko ci jamonoy Blaise Diagne gynécologue bi nee na mais man a ñii ñii ñii man dama leen a raw jamono wala dañuy naraw ban monde la ñuy nekk comme ay dof xaw ma dama leen a raw jamono bu fekkee ne dama leen raw jamono wax leen moom ma taxaw xaar leen bu fekkee ne fu ma jë fu ma nekk ak fu ngeen ne bokkul yéen a ngi ci ginnaaw ngeen yuuxu ma taxaw xaar leen loolu lépp waxoon naa ko fi. kii ñam nañ ko ci jamonoy Blaise Diagne vidéo bu mujj bu booy faral footballeur HLM Grand Médine ma ngi koy ma ngi jàpp Adji Sarr nii jootul ko di ko dóor dóor tàng jër vidéo laa la wax mënuñu ko génne ndax booy fadal fadal HLM Grand Médine footballeur booy fadal Adji Sarr a ngi dëkk Grand Yoff xaar yàlla booy faram fadal bu HLM Grand Médine footballeur vidéo nii mu jàpp Adji Sarr Adji Sarr mooy dernier faram di ko gulaali gulaali tàng jër vidéo nii taatu aji saar tàng jër kër ñoom aji saar kër ñoom aji saar néegu ñoom aji saar ca Grand Yoff xaar yàlla ak euh, kii di euh, euh, xaritam bi mu te waxoon naa leen ko man seen ba ñamee ba pare génn booy bi di taxawaal Aji sar génn gis ko envoie ko message message baa ngi fii lépp nga fi vidéo bi munu ko wane ndax euh, c'est sexuel boy faral liko ko tangi jeur ne ba nga tangi jeur vidéo ñi ngi ak mom wallahi billahi fami footballeur la leen ko salam Grand Yoff Adji Sarr mii néegi ñoom maam seen ak aji sar faral génn di taxawal aji sar gis ko envoyé ko message naa ko waxoon da ngay ñibbi message baa ngi fii waxoon da ngay ñibbi mu naa ko waa ay après faral di ko jaay bandi sax ay après ah da nga da ngay ñibbi di gis la nangam message yaa ngi ay message écrit aji saar mi ma ñëw taxaw ne kii ñamante na bu yàgg ñu ñu koy dugal di tiktok ku ne di ha, ha, ku ne di ha ha ha ha ha ha xamuñu sax limay wax mo do Sénégal dafa fois damay xool triste di ree rek nan ndaysan te yalla jiitu sa jamono bax dañ lay def sax dof fa que ngay wax jamono yi prophète sallallahu alayhi wasallam da ñëwoon di leen wax ay wax yo xam ñom ñep dañ don tok naan wax ki dafa dof ki nangam c'est normal parce que limu mu leen di wax ñom xamuñu ko def leen jiitu di wax lo xamni ñom xamuñu ko ñoom ñëpp ay ah ya Muhammad ya akhli ya Muhammad di leen wax lu ñëwagul di leen wax lépp ñoom ñu jaaxle dafay mel ni ñun benn yenentu bu wàcc suñu askan ma doon benn yenentu bu wàcc sama askan di leen wax lu ñu xamul lu ñu gisagut ñoom ñëpp eh, dof lañ leen a yàppe dafa dof kii wér fekk ñoom ñooñu laa la wax ñoo wér du dañoo dof sax ma dañoo xamul li ngay wax kene woon la terre Galilée ba naan la terre tourne ou bien la terre dañoo këppati bopp bi

foofu laay tëjee c'est dommage hein réew mi dafa naqaree lijjanti dafa naqaree lijjanti kenn mënu len dimbal lo wax gars dañuy nalawan nalawan nalawan nalawan nalaw nalawan nalaw ba da nga nan non c'est pas c'est pas possible audio yi ñu doon wax lu ma leen waxone buma ma audio du génn lu ñu doon wax ñi invité ba invité MC Niass di ko wax la pour ojo wax ni amu audio deglu len de ma tek MC ness li wax ci audio yi te waxon na len ko avant MC ness di genn ma ñeuk genn senegal na ay audio amna yene ngi fàttaliku Ousmane Sonko ma ngek bombu ci sama loxo wol len mu Ousmane Sonko ne len ko yéen Ousmane Sonko ne len ko mu ñew ma jox ko bombu yi ma yor ay audio ma ko ñeuk a wax Sénégal boobu kenn déggugul wax audio xana ku wax lolu ngeen wara xamni pop senegal ken waxu gu fi audio ma ñeuk taxaw man moo la amul gën ne yor na ay bombu wool leen ma Ousmane Sonko dëgg la wala du dëgg boobu Sénégal kenn xamul audio moo tax bu ma toggee di leen seetaan ki ñenn ñi di wax damay ree ma ne ñii est wér nañ bi may wax audio ku ba ma maa ngi audio wóol leen ma Ousmane Sonko laa jox boobu kan moo fi wax waxu audio MC Niass après la ñëw maa ko jiite ci waxu audio foofu foofu ba may wax ne yor naa audio kenn waxagul Sénégal ne yor te maa ngi yor ñu wér xaw ma ko dox waaye du man de wallahi rom na sama jamono bamay wax waxu audio ken waxu goko fi te boobu xamu won sax audio amna senegal Sénégal man maa ñew sama audio fi la tok sama telephone sama telephone ken keng keng keng keng keng per ma dóor ay audio sama telephone di sore xamu woon sax ni lol la woo ma mu fiston yaay yaay audio yi deglu après nga rappelé ma ma tok jël deglu audio yi may audio yi legi nak lu ngay leer xaar la ma tegal len MC Niass werantu xuuxaan tek tubay ci xaxam MC Niass ak Adji Sarr la muy wax ci ojo ya man wax naa leen ko avant MC Niass di génn di wax ci ojo <laughs> bu ma yorul audio MC Niass nan laa xamee li nekk ci audio MC yi waaw ma tegal leen MC Niass sur Adji Sarr waaw mi ngi nii gars yi dañ ma ko tegal am na nag ay nit yu yeew ay nit yu yeew dañoo gis affaire bi ak envoyé ma ko dem ma moo laa waxoon nga ñu li le MC Niass di wax ci audio yi wax naa leen ko ay mois avant. bu ma yoruloon audio yi dinaa xam lan la la audio MCS lan moo ci ne déglu leen de déglu leen de <laughs> man ay ree lañ may def déglu leen oh yooyu yooyu déglu leen ma une minute rek léegi ngeen jommi léegi déglu leen yàggul de. musuma waaye mun de ci dëkk bu ñuy waxee formation mu ñëw bokk ci def formation Shababul Aji sar man moma wo li taxone makoy koy défendre taalibe bàyyi ñoo ko bëggoon a ci talibé bàyyi ma taxaw na len ta aji sar moom moma wo ma len won fi avant MC Niass di gën ma len aji sar mo wo MC Niass papa moko jox téléphone numéro MC Niass ne ko woowal MC Niass waxoon na len ko wala waxuma len ko da ngeen naan waw wala déedéet ñu avancer ngeen déglu man ma ñëk wax Sénégal ne aji sar mo wo MC Niass. nu mu amee numéro nag mooy papay Adji Sarr moo jox numéro MC Niass Adji Sarr ne ko woowal Adji dëgg loolu du dëgg ok ma leen moom MC génn ne Adji joxul dara papaam dëggul papaam ma ne c'est faux Adji Sarr ci lal te déggul papaam <laughs> ku ko waxoon ku waxoon loolu mais est-ce que yéen may déglu barke alquran bu noppé do len deug deug barke la ilaha illallah bu noppé do len amati deug ji deug ji la yor te ko sama loxo lu wax ken du ko teggi histoire bi damay gëm di ko raconté maa leen njëkk wax bobu MC ness genn na ne adi sar du ak papam papaam ma nga fële ca ndox ma mané len du lol loolu information lañ ko jox adi sar du tëdd ci lal te deggul bayam te gis ngeen ko yeen ñepp ko deg yeen ñepp gis baye adi sar ku ko am dëgg nañ déglu. dëgg bàyyi la mun ngaa nekk jullit sax bon mun nekk taalibe bàyyi bon. des fois damay am envie noppi Macky kay ndax la ma xam amul ko ko ci xam la ma ca yor amul ko ko ci yor. man nag ba ma ko défendre ba pare janvier bii ci lama ma Adji Sarr man aw ma numéro Adji Sarr aw ma fu ma koy amee Adji Sarr ba ma ooyee ñu waxtaan. dama ko bëggoon a génne maa ngi ko yor maa ngi wax ak moom bay jooy ne ko kaay ma delloo ci société bi. kan moo leen njëkk a wax ni MC Niass dafa wax ci audio yi ne ko kaay ma delloo ci société bi ne ko ci yow la des ne ko foo nekk mu ne ko xaw ma fu mu ne mu ne ko ci yow des boo bëggee mun naa la jëlee foofu noonu yóbbu la mbir na bàyyi kenn du fi fekk déglu leen lu MC Niass di wax. ne waxuma ak Adji Sarr waxtaan ak moom. kaay ma delloo la ci société. li wax leen ko teg ci société bi moo ci lii nekk parce que man xam naa dañ koy manipuler parce que lu tax ñu kidnappé ko manipuler ko moom wax na ko moom am na audio bu mu wax ne ñii su ma waxee seen nguur daanu moo tax xam naa lépp moo tax ñu téye moom moo ko wax te audio yooyu dana génn. parce que man <laughs> mais lii leen ko. ñu waxtaan waxuma ne damay xaawi sutura wala nangam ñëw leen ñu waxtaan. لا أم سيني لوحد نيس لوحد نيس أجي أجي مو أم سيني سيب ما غير لا مو وح يب وح ناقو لا وح ناقو نن لا منو يرو ما أي أجي أم سيني س دلنا دي دي تو أم سيني س أبغى أم سيني س دوح ما وح لو نتي أجي ميا mais il faut arrêter il faut arrêter كيرو أجي أم سيني س دلنا وح لو نتي